inna bna abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdiihi xaaliqu zaman inna bna abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdiihi xaaliqu zaman alal wara stafaahu man abdaahu raxmata kullin bacdamaa hadaahu wujuuhu saxbihi alkiraami buyidat bacda mujaahadatihi allati inqadat ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي محا ما أفلا بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساطع ليس ينصرم أبى إلهه تعالى إلا إتمام نوره الذي تحلى للمصطفى وجهت خدمة صفت بشارة له وأعدائي نفت للمنتقى وجهت ما قد اذهبا جملة ما لم يرض لي فذهبا هدم ربي بالنبي بنا ضرر ليتوجه وزحزح الغرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفى بخدمتي إلهي المعين بقدر ذاته عيوبي واللعين إن امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا بالرضا فانسلبا لغيرنا نحل عين سرمدا وليس ينحونا ولا قاك مدى شق على الشيطان كون المنتقى سيده وهو يلاقي ما اتقى يدعه لداره الغلاظ بحزبه ولهم الدلاظ طوافه بين السعير ولظى طواف من لما يضر دلظى ألمه بين الحميم والضريع ألم باك لا يزال بصريع نفاه قبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختير لي يدب وساقه إلى سوان الرب لغيرنا العدى نحت والحسده وتتوجه لغيري مفسده رد مكائد العدا إلى العدا باق لينتقم قبل من عدا جلال ربي تعالى عتلا إلى سواي ضررا فانعتلا يقي قلامي الخطا والسهوى باق كفاني العدا واللهوى maxa alladi lahu lbaraaya walzaman durra naxaani qablu qaadalil aman ginnaaw bi ñu santatee yàlla jilliwaat ci yonentaa bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dellu si santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ko tedd ki di Cheikh Bamba Xaadim Rasuul ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci di leen jaajëfal di balu àq ñëpp cee balu àq ñëpp di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ba mbooleem ay naalam ak sumbam mu àggale ko def ko nu kawe njortam waaye itam di ziar mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp di ziar mbooleem seex yi waaye itam di ziar mbooleem taalibe yëpp mbokk yi jàkkaarloo ñu ci duñu seetaan di ñu bàyyi xel ci ay site internet yu fassantikoo ak ay rajo yu fassantikoo ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ca di leen bége waaye nag mbokk yi tey day bis bu am solo boo xam ne kenn ci njaboot ak Serigne kenn ci njaboot ak maam Anta di jàmbaar ji nga xam ne moo di Serigne Fallou Gala Silla liggéeyaa konu Seexul Xadim Xadim Rasoul da cee woote woon sant fàttaliku ñaanal sëriñam ba xaritam ba soppeem ba waajuram ba di Serigne Modou Rokhaya moom seex Mouhamadil Mamoun ñu ñaan yàlla kattanal ko tawféexal ko ba ni mu ko bëggee mu defe kon kawe njortam bés bi itam nag da ko tuddee Serigne Abdoul Wadood moom Serigne Modou Farmata moom Serigne Afia kon nag bis bu am solo boobu nag ñu tàmbalee ko jàng alquran jàng xasaayit istixfaar salaatu ala nabi waaye itam bernde waaye tam ñu jàkkaarloo kenn koo xamante ni duut ñu ko para sant ci biir réew mi duut ñu ko para sant itam ci bitim réew ndax ku gis imaasam xam ni daa seey ci Serigne Touba Xaadim Rasuul ku gis imaasam xam ni daa seey ci maamam di maam Cheikh Issa jenn ku gis euh, imaasam xam ni foo ko mas a gis muy dem ci lii rek la nekk muy yëgle taalibe yi yittee njaboot ak sëñ tubaa gi waaye tam yittee njaboot ak maam Cheikh Issa jenn gi euh, du taalibe boo xamante ni dana am xewle sëriñ Sidinaar Diène du yëkkati kàddoom wala mu yëkkati jéegoom wala mu yëkkati jëfam ak ñaqam dem ca bés boobee mel na ni kon dëpp fi sëñ naar kook léegi taxawaay bi mu am pas-pas bi mu am yokk na yaatal na ndax olof yi dañoo wax ni ku yokkul da ngaa wàññi te dañoo waxaat ni baax am na solo waaye bokk na ci li gën a am solo mooy nga baax ba pare dem bàyyi ku baax su fekkee naal yoo fi bàyyi woon la daañu ko àggale su fekkee njëmbat la daañu ko suuxat su fekkee ay sample itam deen ko rokkas ba kenn du ko mën a euh, sempi waaye itam li fi sëñ naar bàyyi soo xoolee ca xari tabaski ya soo xoolee ca hëddiye ya soo xoolee ca murite ga soo xoolee soo xoolee ba mu jeex lépp tey sëñ naar gën euh, sëñ sii di naar gën na koo rokkas ànd koog mbooleem ay rakkam moo tax na tey mu ñëw fii ci daaru salaam diggante kër maam Cheikh saa jenn ak kër maam Cheikh Anta waaye itam digganteem ak sëriñ Fallou Gallas la rek doy na sëkk misaal mu war a mën a ñëw ci bés bu am solo bile ginnaaw buñ ko nuyoo siyaar ko pare dañ koy jébbal gi mu yëkkati ay kàddoom jëmale ci bésu tay bi ñuy sant sëñ Modou Rokhaya ko fàttali ko ko ñaanal waaye itam digganteem ak sëriñ Fallou Galass Syll la sëriñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki jullit yëpp di xam ni suñu teewaay fii ci bisub sëriñ fallu Galass bi dañ ko def ngir mottali wëllëre. Mm-hmm. ndax uh, sama wëllëre la lool yàgg na mm-hmm. kon nag lépp lu mu nekk rek dama ci ànd ak moom rawatina lii muy def nag di sant sëriñam ndax sant moom koo def sunu borom dolli la ku la ca woo nga nga ànd ca ak moom it njariñ rek la sanhereno bâtinan mm-hmm. moo tax ndikk teew ci bis bii sëñ fa loot nekk di ku baax ku ràññee ku xàmmee mm-hmm. ndax yoonu murid bi yaatu na waaye fépp fu fi dem rek dem ni foofu la dëkk. waaye loolu lépp nag ci yitteem ak gàttalam ak ràññee ak ràññeelam la ndax euh, taalibe bi su fekkee ni tërbiyewu na. Mm-hmm. ba ñu gërëm ko mu jàng ba am xam-xam dañ ci ak réer mm-hmm. noonu rek la war a mel te noonu la mel ku baax la taalibe la sàmm na wala lool kon nag maa ngi ñaan bis bi nga xay da koy def. ngir di ko defal kilifaam googu lépp lu mu ci def rek yal na ko yàlla suñu borom nangu te boole nu ko nun ñëpp ndax euh, lu baax moom du doy waaw lu baax du doy kon nag lii muy def man saa su ne rek bu ma fi ma fekkee rek yàlla bàyyi ko man maa ñëwal sama bopp sax du ma yeble kon nag maa ngi ciy bég bu baax di sant bu baax a baax di fàttali wala yi nga xam ne dox na ci diggante Darou Salaam ak Njenne itam mm-hmm. di ko jaarale ci moom. loolu rek daana moo doon kàddu yi jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Sidi Naar euh, kàddu yi am na soo rafet na leer na comme ni nga ko waxee kàddu yu kóllëre la kàddu yu dab tam kóllëre ñi ngi ñaan yàlla kàttan na la taw féexal la yow tamit ba li nga bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa fa seen ko liggéeyal maam Cheikh Issa Diène nga defe koon kawe njort yàlla guddal sa fan yokk sa wér murid yëpp yéene nañ la ko taalibe yëpp itam yéene nañ la ko kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba ci kanam incha allah inna bna abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdiihi xaaliqu zaman inna bna abdillahi ànd ak yéen ci bés bu am solo bi nga xam ni dañuy sant di ñaanal di fàttaliku sëriñ Modou Rokhaya jàmbaari seexul xadim bi waaye itam liggéeyaa konam bi di sëriñ Fallou Galas Sylla di ko amal tey jii nag fii ci dëkk bu sell bi nga xam moo di Daaru Salaam di dëkk bi seexul xadim njëkk a am ci ay dëkkam waaye nag euh, sëñ Modou Rokhaya ñëpp xamoon taxawaayam ñu taxaw ki nga xam ni moo di Serigne Balla Gueye Serigne Daara di borom taxawaay di borom pas-pas di koo xamante ni ci jàng ak jàngale rek lañ ko xamee bés bi itam ci appel ba léegi ñi ngi ko àndante ak moom tey jiitam mu ñëwoon ci bés bi ñu bëggoon rek nga tënkal ñu ci lenn ci sëñ Modou Rokhaya ak taxawaay bi nga xamante ni sëñ Fallou am na ko ci Daaru Salaam ndax ay maamam nii lañ taxee woon moom itam ba mu dikkee delloo buum ca boy boy ga sëñ Balla bisimilah. jërëjëf sëñ Moussa Diop ñu ngi nuyu mbokk yi baax di leen siyaare. jëlee nuyoo beeg siyaare bi Cheikh Mountakhal Bachir ngeen yàlla gën koo yàggal lool te gën koo wéral du ñaan si Ebo Mouhamad xale bi Cheikh Mouhamad Mamoun Darou Salaam ak njëbal borom gaawaan gi yëpp waaye di siyaare nag soldaaru Darou Salaam mu si Cheikh Anta mu Cheikh Modou ya ngeen yàlla gën ko yàlla gën koo wéral ba li mu yéene liggéey Serigne Touba lépp ci ko Cheikh Modou Roqeya mu def ko ni mu ko soobee comme ni ko sëñ Moussa waxee rek sëñ Fallou moom maa maa yow ak ñu bari mhm. moo ñu formé comme bisam bu ñëwee wax yàlla kenn ku am nga sañ-sañ ak fierté pour man kii àddu kii ni nga ci war a àddoo incha allahu taala. Mm-hmm. sëñ bi doxee nag koo xam-xam ni ku baax. nit koo xam ne si muntaxaar wax nee moom si mu roqee la roy ci taalibe si muntaxaar mooy Sëñ Tuubaa nee na moom taalibe ak pas-pas ak bëgg Sëñ Tuubaa si mu roqee la ci roy te loolu image la yaakaar naa mm-hmm. kon kooku day mel ni kon yaakaar naa bisam ni mu doll moo waral Sëñ Fallu amee ko ni mu ko amee si naar jénn ngi génn léegi ak kilifa yi nga xam ne kasaalika ñoo ni ak ñi bëgg a ñëw loolu lépp li ko waral mooy jëmmi sëñ Mudu Roqaya mhm. sëñ Sëñ Fallu daa tax koo ku baax koo xam ni moo ko defar léegi bi ñu wootee njaarim sëñ Laat Siise bi may dajale kaamil yi ku ma ko waxale danaa ma sëñ Mudu Roqaya jaral na ma jàng kaamil mu wax ko daanaka 81 kaamil yi ñu jàng ñi ci ëpp man naa am sëñ Mudu Roqaya bëgg ñu ko bëgg ak daa leen taxawu Magal Daaru Salaam ci njàng kaamil mi koo wax que sëñ Moustapha Guèye njaarim sëñ Ilimaan Guèye jàng na arabité bi sëñ Xaali Jax sëñ euh, Xaarim Jóob suñ daam ñu ngi xal i mbusoobe kenn ku nekk rek jox nga lim boo xam ne li ko waral mooy suñu roxee yi nga ko yàgg amel cofeel goo xam ne kenn ku ne bëggoon nga bisam ñëw ba nga def dara mm-hmm. teew bisu yeesu bi mu ñëwee jàng nañ kaay waaye tey mi suñu fàllu woote waate kenn ku nekk li muy xar ak li muy jigee jigee kenn ku ne jàngaan nga ba kaay bi àgg na àgg nañ 81 kaamil Moussa day mel ne kon bëgg gi mu bëgg lu baax te nekk créateur boo xam ne ak formateur boo xam ne yombuta roy mm-hmm. waaw yombuta dab mu see mu droxee wax ni Abdou Khadre Gassama sëñ Moussa mhm. ko xam mu xamul ak liif si Moodu moo ko sol ba mën a jàng xasida ba daa ji bari isbi jàng ci moom nañ ko jëlee mhm. loolu tara dara jële yaakaar naa sëñ Abdoulaye Seck moom damay jëlee ñu wasalallaa ñu koy jàng ñëpp mooy seen doyen mhm. ki ko tabb ba man loolu sama Moodu Roqee boo ñëwee ji sëñ laat wax na ni sëñ Moodu Roqee pëstee fam waa nga suñu tubaab ñëpp ko seede sëñ Khadre wax loolu Cheikh Saalih si mu doxaay mi ñu waxee léegi nii ni moom la yore ci ak Pastef ak bëgg lu baax. Mhm. kon yaakaar naa bu yoree Sëñ Galas def ko ni mu ko def ba si Galas woote bis bi kenn ku ne Sëñ Moussa dana am fierté ak mbégte. Mhm. ñëw teew ba léegi nii nag moom man nañ ko waaye mu ki mu ko dab moom ki mu ko dab. waaw waaw mu bëgg Sëñ Tuubaa ga am taalibe ga bëgg doomu aadama bëgg doomu aadama. loolu sax léegi kat maanaam moo waral sëñ Fallou di ko woor bis bi nga xam ne sëñ Moussa yéen ñëpp war ngeen seen taxawaay yi mu amee solo mhm. ñëpp ñëw ànd ko moom ngir lan Cheikh Modou Rokhaya la kenn mënut a fay ke la kenn mënut a jot ci asakay fay ko. mu tuddee ko sëñ Abdou Wadoud. mu tuddee ko sëñ Wadoud mi nga xam ne jokk ak mbokk itam. jokk ak mbokk macha allah si Abdou Abdou Wadoud moom nekk doomu si Afia. si mu Rokhaya mas naa ànd ak njabootu Darou Salaam gépp dem Njaareem ka sëñ Afia si Abdou Wadoud nag daa bëgg ñëpp xam ni kër gi benn la defar digg ko sëñ Afia si ngaar ba mu nekk benn jàpp njaboot sëñ Afia gi séddee yëpp def leen ni moom moo war a sëñ Fallou mu ñëwee fii ak jokk mbokk am na ci te ak mbokk sëñ Moussa yàlla nee na maa ko jëlee ci sama tur mi wax arrahman ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la kon sëñ Galas day mel ni yàkka yàkkalewaat na diggante digg si kese avec sëñ gaawaan waaye yàkkalewaat digg si mu roqi ak sëñ ah, Abdou Wadoud macha allah taala ba lépp sëñ Moussa buñ cee mën a mën nañ cee royee daal bëgg sëñ Tuubaa bëgg mbokk bëgg alxuraan bëgg xasaayid bëgg boo xoolee doomu aadama bi si fa am ma hmm. dana yàlla fay si mu di roqi yëpp sëñ fi nekk yàlla gën ko yàggal ba li mu ñëwee liggéey sëñ Modou Rokhaya mu liggéey ko ànd ak njaboot sëñ Modou Rokhaya ak mborom njaboot Daaru Salaam gi yëpp yàlla gën a def jàmm ci réew mi sëñ Moussa gën ñoo taxaw zaahiran wa baatinan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu inna bna abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdiihi xaaliqu zaman inna bna abdillahi faaqa kulla man abdaahu aw yubdiihi xaaliqu zaman bésu tey bi ñu sant sëñ Modou Rokhaya waaye itam dañ koo tuddee ki nga xamante ni mooy sëriñ Abdou Wadoud moom sëñ du Farmata moom maam Cheikh Anta kon yaakaar naa ni suñu waxee loolu rek xel yi dana yegg ci ni moom sëñ Afia bokk xel yi dana yegg ci ni ak mbokk la sëñ Fallou Galass Syll di doxal foofu ñu yëkkati kàddu rek jox sëriñ bi muy indi kàddu yi seere ak témoignage waaye tam kàddu digganteem ak sëñ Fallou mi nga xam ni moo tax tey mu jóg ci santuk sëñ Modou Rokhaya gi. waa ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te sant ñëpp. di rafetlu bis bi nga xam ni dañ fee ñëw ànd ceeg sëñ Fallou Galass Sylla ñu xam taxawaayam ci Daaru Salaam ak taxawaayam ci yoonu murit gépp waaye nag mu di ci sant sëñ mu Rokhaya mi nga xam ni mooy buntam ci kër sëñ Gaawaan waaye dafay mel ni kon ñun la koy santale ndax sëñ Modou Rokhaya kenn ku ne xam nga taxawaayam bi mu am ci Daaru jëf jim jëf ci yoonu murit ci taalibe ànd gi mu àndoon ak sunu waajur itam doonte mu doon doom ci moom waaye ñu déggoo woon lool ndax boo xoolee sëñ Modou Rokhaya ba mu tuddee maam Cheikh Anta tuddee sëñ Modou Mamoun sëñ Ibra Ndar la ci teg mm-hmm. kon loolu wane na ni seen diggante lu rattax la woon lu dëgg la woon lu rafet la woon kon nag bu ko sëñ Fallou di sant kon ñun la koy santale ñun ñoo ko waroon def te xam nañ taxawaay bi mu taxawoon ci yoonu murit nekkoon murit saadex taxawoon taxawaay bu rafet di sagal daaru salaam di sagal yoonu murit fu ñu mën a tollu bari na ci ay xise yu ñu mën na wax waaye jataay bi duñ ko may tuddee giñ ko tuddee sëñ Modou Farmata itam di kenn ci njaboot gi di njabootu sëñ Afe te sëñ Afe ak maam Cheikh Anta ñëpp xam ni ñu demee sëñ Modou Farmata it noonu la amee woon ak relation suma waajur ba dégg naa sëñ Ibra Ndar daana ko gane ji kon loolu itam euh, dañ koy rafetlu kon bu ko tuddee mel ne tuddee ko tuddee na ko njaboot gépp bu jëlee pare na ko itam sëñ Bass Abdou Khadr ak soxna Momi kebe mel na ni loolu itam dañ ci am ak cant ak rafetlu ndax sëñ bas ñëpp xam nañ taxawaay bi muy taxaw ku fi nekkal sëriñ Touba ak sag gi muy sagal yoon wi ci jëf ci wax ak ci teewaay foo foo xam ni mag ña seen tànk eggu fa mu egg egg fa fu seen kàddu eggul mu eggale ko fa maanaam amul lenn loo xam ni sëñ Bass mas naa wax ba nga mën cee teggi dara ci diingat wala ci ñaawal kon lu muy def wala luñ ko tuddee lu ne loolu dañ koy rafetlu di ci sant soxna moom Kébé itam di sunu wëllëre bu yàgg so ñu xamante woon kër soxna moomi ba nga xam ni soxna Garda Bousso moo ñu boole woon ak moom mm-hmm. ñu daan defee foofu avant première bisu soxna moom yi muy nit ku doon murit saadex te ñu ngi dégg bu baax jëf yi muy jëf doonte gëj nañoo gisante waaye jëf yi muy jëf ci yoon wi loolu ñu ngi koy dégg di ko rafetlu mm-hmm. kon daal bis bi lépp rafet kon sëñ fàllu dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg teewe euh, taxawee bis bi ñu yàgg koo teewe te lépp lu luñ ci def ci ñaan ci alxuraan ak xasida mu wàcce ci njabootam wàcce ci taalibe yi wàcce ci daaru salaam te yàlla nangul ñu ko bijaay xayrul xadim Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul jërë jëf jërëjëf Mbacke Balla sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Ibra Ndar moom maam Cheikh Anta kàddu yi am na solo rafet na ca leer na yal na la yàlla fay aw yiw ndax seere ak témoignage yu am solo yi nga xam ne def nga ko ci mbokki jullit yaakaar naa mooy lu olof di wax ni tudd sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara daan naam dana yokk say daraja yow mii yokk itam sa taxawaay yokk itam ñu xam ni njabootu sañ Tuubaa gi ñoom ñëpp benn lañ tàmbalee Cheikh Bass Abdoul Khadir seere yi am solo yi nga xam ni def nga ko ci jëmmam waaye itam soxna Momy kebe moom itam wuutu leen sax ci sëñ Fallou Galass si la ndax yéen kenn ku nekk amoon nga yéene euh, jëfal sëñ fàllu moom itam mu jëfal ko kon su ko soo yëkkatee kàddu yi jëmale ci moom kon oyof la ak mbaax la waaye itam xam le ni njaboot ak sëñ Tuubaa yëpp benn lañ moo ko sabab kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla lafa la cat ba li nga bëgg a liggéey sëriñ Tuubaa lépp nit ñaa ngi dégg sab jëw ci lépp lu rafet la yàlla na lépp yegg ci barkeb sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi jàkkaarloo ñun te ñu seetaan cay bàyyi xel site internet yu fasantikoo yi nga xam ne ñoo ngi fii tey ci Daaru Salaam. ci bés bi ñuy fàttaliku sëriñ Modou Roqeya moom Cheikh Mouhamadil Mamoun ci ki koy amal di sëriñ falu Gala Sylla di liggéey akonu borom Daaru Salaam moo tax nag ginnaaw bu ñu dégloo kàddu yu am solo yi nga xam ne bàyyi koon ci sëñ Saliou Mbacke Ibra Ndar di kàddu yi seere kàddu yi témoignage ñoo ngi toog ak kenn koo xamante ni bii ni ma ko waxee woon léegi rek ci sëriñ si di Naar jenn laa koy waxe ci jëmmam jii ndax ku koom la ci xam ndax taxawaayam ci réew mi waaye itam taxawaayam ci dëkk bi taxawaayam ci ginnaaw Cheikh Ahmadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke di koo xamante ni borom pas-pas la borom pëstéef la ba ñu ko xamee ba léegi ci lefum liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul lekk ci lañ ko xam mu di sëriñ Modou Mbacke si moom Serigne Moustapha si ñun ñii nga xamante ni bii ñooy presse nekk ci réew dëkk bu sell bi di Touba ba ci biir réew mi ak ñenn ñi nekk ci bitim réew sax mën nañoo wax ni kenn ku ne ci ñun. ameel na ko njukkal ndax boot nañu yiir nañu sàmm nañu waaye itam aar nañu jël ay alalam di ko joxe jël temps di ko joxe waaye itam oyof lool ci wàllu saayir ñun ñëpp ñu ràññee taxawaayam li ñuy diiru li ñuy ànd màggal karawaan képp pour màggal tubaa gis nañ ni du sonn du tàyyi waaye itam kenn ku ne ci ñun da gis boppam ci jëmam ji ginnaaw bi màggal jàlle itam karawaan amul yëpp lu mu munti doon itam kenn ku ci nekk ci ñun da nga dem këram fedd li gi dox suñu digganteek moom ñu ñaan yàlla kàttanal ko cër bi ñu ko joxaat itam ci màggal Touba ak léegi muy cër yoo xamante ni bii Serigne Bassirou wóolu na ko jox ko ko mu koy sàmm yàlla ko ci yàlla gën a kàttanal gën koo ndamal ba kóolteef gii Serigne Mountakha am ci moom Cheikh Bass yaakaar ji mu am ci moom yàlla bu yaakaar jooju fecceeku kon Serigne bi ginnaaw bu ñu nuyoo siyaara pare xam sa digganteeg Serigne Fallou Gala Sill waaye sa digganteeg Daaru Salaam diggante njaboot gépp di genn kon yaakaar naa ni kàddu yi seere yi nga xam ni dañ koy def tey bés bi nga xam ne ñu fàttaliku Serigne Modou Rokhaya waaye tuddee ko itam sëriñ Abdul Wadood euh, moom sëñ Modou Farmata yaakaar naa ni bës boobu soo ñëwee kàddu yoo fi yëkkati rek dana doy sëkk nit ñi seere ni loo fi wax rek noonu rek la deme bisimilah. asalaamaaleykum euh, wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sangub sang yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di siyaare ki fi nekk sëriñ Tuubaa muy sëriñ Muntaxa Mbakke ñaan yàlla sunu borom bàyyi ko fi te kàttanal ko te wéral ko. liggéey Sëñ Tuubaa bi nu ànd ko moom di nuyut xalifa Daaru Salaam bi xalifa maam Cheikh Anta Mbacké di nuyut maam Cheikh Anta moom Sëñ Modou Rokhaya gis naa fi njabootam ay doomam ñu ngi toog nii eh, di nuyut képp koo xam ne tey bis bii sa bis la te muy Sëñ Fallou Galass Syll la eh, di nuyu itam yéen ñi nga xam ne yéen a yor jottali muy presse bi ci seen taxawaay ci tuubaa seen taxawaay ci réew mi te loolu defe naa man mën naa ko seede ndax ànd na maa lu du mat juróom-ñeenti at du juróom-ñeenti weer du juróom-ñetti fan juróom-ñeenti at ànd naa ko yéen te ànd bi it ànd bu bu bu metti lay doon ci suuf si ak poussière bi ak déplacement yoo xam ne ay mille kilomètres da ko daw yoon boo xam ne defe naa keroog bi ñuy wàññi ko jógee Fuuta ñu xoolee contre oto bi ma yoroon ëpp na mille di dem mm. te mosumaa gis ci yéen lenn lu dul bëgg Sëriñ Tuubaa ak bëgg seen métier bi yal na leen yàlla taxaw def leen magi sëriñ Touba te liggéeyal lislaam moom mu ngi liggéeyal sëriñ Touba rek ndax sëriñ Touba moom cadre bi mooy lislaam rek kon ku xëy ci toolu sëriñ Touba xëy ngi ci toolu yonent bi sallallahu alayhi fi tey nag euh, seet sunu xarit boo xam ne wax dëgg yàlla ni ko waxee rek la demee muy taalibeeb Daaru Salaam waaye muy taalibeeb yoon wi nag kenn ku nekk ku soxla ak foo soxlaa da nga soxla sëñ Fallou mm. xam ngeen ko man xam naa ko ëtti murit yëpp nag su ma ko waxee mooy këri sëñ Tuubaa yi ak fu sax këri sëñ Tuubaa yi mm-hmm. ku soxla sa bis danga nga bëgg sëñ Fallou Galass la teew ci mm-hmm. kon dafa mel ni bisu bi bisu ñëpp la ah bisu képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci yoon wi la moo tax ñu ñëw tey euh, ànd délégation bu am solo muy euh, sëñ Fallou Diaw mi ngi nii ànd ak nun mm-hmm. maam Cheikh Gueye moom xam ngeen ko ndax Euh, wax lu baax wàññiwul dara ñoom ñoo njëkk a feeñal sëriñ Touba ci yoon bi muy ahlu ngeen googu sëñ Adama Guèye suñ ma Babou Guèye ñu am cër ci yoonu sëriñ Touba lañ sëñ Daam Ñang mu ngi nii toog sëñ mustafa si suñu doom sëriñ Mbay si bàyyam sax laa waroon njëkk tudd mooy délégation bi nga xam ne jógee nañ Touba fekk fii sëtu Cheikh Maamane tey toog loolu lu mat a sant yàlla la ndax euh, lii moom day bis bu am solo suñ Modou Rokhaya tuddee ko bis mooy tuddee bis rek maam Cheikh Anta wala tuddee ko suñ Modou Mamoun ndax kenn ku nekk diggante ma Serigne Touba ci ay doomam laa bëgg a wax suñ Abdoulaye nag laa ciy gën a cité suñ Saliou Mbacke suñ Modou Rokhaya lu nekk def na ko ci yoon wi defin woo xam ne nii ku jamono wante nag moom da nga xam ne kii Serigne Touba rek ko ñor kër maam Cheikh gii ma bokkee li yëkkati na ko yëkkati goo xam ne bu maam Cheikh gannaawam ñëw di xool dana xam ne doomam ji dey wala sëtam bii taxaw na taxawaay ba ñu ñi fi bàyyi muy ay sët sëtaat it ba ci maam Cheikh bi bii fi nekk tey moom itam taxawaay boobu la taxaw kon nag bu fàllu jógee ne day màggalal kooku bis mu ngi def lu baax loo xam ne kenn ku nekk fa nga nekk loolu war nga koo roy ci moom ndax màggal sa kilifa boo dégg ñaan Mawlidun Nabiyya mooy màggal ji dugg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak màggal yonent bi màggal gii ñuy defit mooy màggal tuubaa màggal Sëriñ Touba rek la ndax na ma ko waxee woon lu simple la ñëw leen sant le ma yàlla lenn lu Sëriñ Touba mos ñaan lu dul loolu man xawma ko suy ñaan yàlla lay ñaan wala yonantam waaye jurit yi rek wala murit yi nag mu ne ñëw leen sant le ma yàlla loolu ci loolu lañ ko mos a déggee kon baatu màggal moom dañ ko fee fekk te Sëriñ Touba ko kon kuy màggal rek yaa ngi ci ndigalu Sëriñ Touba moo tax bis bi tey rafetlu nañ ko trop moo tax ñu bàyyi suñu yitt yëpp ànd ak délégation bii ñëw teew fii fa yéene ko ànd ak moom ba suñ kemtalaay kattan Fallou Galass nag euh, moom bu ma doon wax dama doon wax avocat yoon wi la avocat ndax lépp loo xam ne laal nga yoon wi la cee kàttanam ak man-manam dana jóg défendre ko ba ñëpp xam ne taxaw na loolu nag su bari woon dana am solo ndax média dama koy faral di wax bi ma ànd ak xal yi journaliste yi dama leen liggéey bi de war ngeen koo fonk bu baax a baax ndax am na réew yoo xam ne seen lañ am ci suuf bariwut mm-hmm. waaye média yóbbu na leen foo xam ne euh, fu nekk àgg nañ fa mm-hmm. danaa ci tudd fu mel ni Israël mm-hmm. Israël pays bu tuuti la waaye am média bu baax tax na lépp lu mu dugg lu bari mu réussir ko moo tax euh, média média du caaxaan na ngeen ko doolee fonk te ngeen di bind dëgg di ko wax ngir yàlla te bu leen par par parparloo amut benn njariñ deuxièmement bi itam lu ngeen gis te muy lu rafet ngeen war koo wax wax leen ko dama amee rek su ngeen ci saxee loolu euh, yàlla mën na leen a dimbale. parce que damay faral di wax mbirum mbirum mbirum journaliste. gis nga Seydina Ousmane bokkoon na ci saabat rasul sallallahu alayhi wa sallam la tax mu génn àdduna sabab ba bu ñuy wax sababu nu sol ci arab am na benn secrétaire bu ñuy wax Marwante moo doon journaliste ba nga xam ne moo doon bind. sababu faatu ga kenn ëpp wu ko ci responsabilité. ndax délégation boobu mu yebaloon doon yu gouverneur ba ca la bindee benn lettre au contraire bu bokkute bi mu bindoon loolu la doomu saaba yi di topp di ko topp muy sabab boo xam ne gannaaw yàlla Seydina Ousmane ci la faatoo te Marwan benn journaliste moo nekkoon secrétaire Seydina Ousmane responsabilité ma mu ngi ci biir. Mm. moo tax su ngeen di bind a wax nit ki. wax a wax bañ jëbëru si nit ki wax a wax bañ yàq alalam wax a wax bañ nangam nangam wax a wax bañ kii loolu dafay métier journaliste Watergate xam ngeen ko. Nixon dara ump leen ci la ci xew lépp xam ngeen ko journaliste day métier mu noobal moo xam ne képp ku yàlla nattoo war ngaa gën a fonk sa kàddu gën a fonk sa xalima. Mm-hmm. te sa micro bii nga yor wala muy caméraman bi bii nga yor war nga ciy dugal lu baax te bañ cee dugal lenn loo xam ne amulul njëriñ réew mi. Mm-hmm. ñu ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal yàlla def leen yi euh, Sëriñ Touba def leen kattan bu mag ba nga xam ne lu ngeen bëgg a am ak lu ngeen bëgg ci yoon wi Sëriñ Touba dana leen ko defal Fallou Galass nag wuy si ko wàññiwul dara lu baax rek la ndax guddeeg bëccëg ni ma ko waxee rek mi ngi ci yoon wi di daw bu baax a kon ñu ngi ñaan ci kàttanu Sëriñ Touba di nuyu suñu doom yi toog di waa Kër Maam Cheikh Anta yi doom ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal yéen tam te bu ngeen demee ci kilifa gu màgg ngeen jotal ko sunu nuyoo sunu mbokk la sunu lépp la. Mm-hmm. loolu ñu ngi leen koy yóbbante bu ngeen demee ngeen nuyu suñu maam Cheikh Anta moom itam taxawaay ci daaru mu daa daaru salaam rafet na lool. ñu ngi leen di jotal itam nuyoo Cheikh Mamadou Bassir Mbacke porte-parole. Mm-hmm. jamono yii ma nga ca tool yi xam naa ne Ismaïl Labraar. Mm-hmm. yaakaar naa bu fi nekkoon kenn du ko fi jiite di jotal itam nuyoo Serigne Mountakha Mbacke xalif Sall di murit mbokkum sëñ Fallou mii di ab sëriñam. sëñ Fall yi taxaw taxawaay bu rafet ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di bala ak ñëpp tey ñaan jàmm ci réew mi di leen ko ñaanal di ko ñaanal sama jàpp di ko ñaan ci àdduna bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf sëriñ Modou Mbacke si euh, leson bi leer na yàlla nañ ci yàlla may dégg ak topp ci man koo jëfe ñu ngi lay sant bu baax yow tamit ci taxawaay bi sa diggante ak sëriñ Fallou ñun mën nañ ci seere ndax karawaan boobu nga wax at yu takk yooyu yëpp. yow ak sëriñ fàllu yéen a koy ànd doon sa lépp taxaw la ci anam yëpp doon na xoolee jëmmi sëriñ Touba ndax sëriñ Touba la yebal sëriñ Fallou ànd ak yow ci liggéey boobu ñun ñëpp ñu lay xoolee jëmmi sëriñ Touba ñu mën di dem ci réew mi yëpp jëmmi sëriñ Touba la lay xoole kon ndax sa jikko mate na ko sa taxawaay mate na ko sa yar mate na ko say teggin mate na ko waaye itam sa taxawaay sa digganteeg sëriñ Touba itam mate na ko kon ñu ngi leen di sant bu baax ni leen gërëm di sant délégation bi nga àndal a njaboot ak maam Cheikh Anta gi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu